waaw maa ngi leen di fay di eh, rafetlu seen déplacement di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun eh, maire bi eh, daanaka dawlu na noonu rek laa ko mën a waxee dawlu na jigéen ju baax la woon man suma suma yaay la suma xarit la woon ndax xam na suma relation ak doomam muy Mbaye Dieye Faye donc mbay ñu ngi ci ay ñaar fépp at lu topp loo xam ne ñu ngi liggéey man ak moom donc bu naqar dalee ci kawam man sama bopp man it dama koy daal di yëg donc euh, ñu ngi leen koy jàll yéen it press bi parce que Mbaye c'est un artiste te artistes yi mënuñu dem sans la presse donc euh, su amee bés bu mel nii la presse ñëw taxaw Euh, jël ay témoignages donc ñun du ñu def lu dul également jaal leen ko yéen it donc ñu leen koy jaal bu baax a baax. Mhm. alors comme une vingtaine d'années mi ngi nii nga nekk ki nga xamante moo moo di Mbaye Gueye Faye mhm. euh, est-ce que nga yaayam ak nga ñu mën a wax ci jigéen ju baax une femme formidable jigéen ju euh, tëddee njaaxanaay jigéen ju njaboot njaboote ñëpp boo demee par exemple fas boo xoolee buntu kër gi da ngay gis ni fii këru ñëpp la. donc bu lekk jotee ñëppay ku ci sa muur nekk da nga koy da nga ciy xewlu mu nekk jigéen joo xam ni également saa yoo ko mësee gis bëñam ngay ngay ngay seen parce que elle une très belle dame nag jigéen ju taaru boo xam ne euh, soppalu euh, baax am yëg am diine ba pare nag am personnalité yar ay doomam euh, jaarale leen fi mu leen war a jaarale ba ñoom seen biir yàgg naa seen biir musuma gis lenn lu ñagas seen diggante c'est parce que ci seen ay wayjur lañ ko jëlee Vieux Cinq Fay ak ki nga xam ne mooy Adja Daro ana lan nga ñu mën a wax ci diggante mbay ak yaayam en tant que di leen fréquenté di leen gis ñoom ñaar ñuy dund une grande complicité xam nga mbay moom doomu yaay la donc euh, mooy suñu genre bi donc ñooñu euh, dafa nekkoon euh, jigéen joo xamee nii doom ji di mbay doomam yëpp sax dañ ko jege woon mais mbay daf ci amoon rôle bu particulier bu mu ci doon joué parce que mbay hmm, man daanaka lépp luy dem ci gafa gi ak di jóge ci gafa gi man euh, sama loxo lay jaar et dama doon gis ci ni muy jaaree sama loxo nan la may euh, joxe par exemple ay instruction ni dafa war a dem ci way juróom bu bu bu jigéen donc euh, mais loolu sax lu ci gën a bare mënuma ko étaler ci public bi mais damay wax daal ni ku toppoon ay juróom la ku toppoon juróom wu jigéen la eh, wax naa ko démb ci euh, bees beesu léegi ni ko doo mën a xam lan mooy njëriñu doom taxawaay bi mu war a taxaw ci ndey wala ci baay tànk génnul àdduna commencé di compter à partir de maintenant loolu laa ko wax. Mhm. alors ci soxna ko si moom. générosité une très belle une femme africaine sénégalaise am euh, maanaam jukkoob sénégalaise am euh, teranga sénégalaise am yittewu sénégalaise am comportement wu sénégalaise am vraiment euh, mbindub une vraie femme africaine donc jigéen ju baax la jigéen ju taaru la woon jigéen ju dal la woon jigéen ju uuf njabootam jigéen ju bëggoon njabootam la donc loolu lay retenir ci moom. ci Mbaye Gueye Faye ñu ñëw si tuuti en tant que koo xamante ne liggéey ngeen en dehors de liggéey bi yan yan relation ngeen amoon parce que dañu gis yaayam bu décédé ñeen ñëpp ngeen ñëw en masse soutenir mais relation animateur artiste relation sénégalais entre sénégalais relation entre ay jullit relation ñu bokk réew mi mais relation ñu am une relation particulière parce que. mbay Sénégal yëpp xam nañ ni euh, li ñu seq xam nga ko xam naa ko keneen xam na ko donc relation boobu la ñu seq relation nit ak nit relation bu professionnelle donc euh, mbay nit ku baax la il est formidable. alors lan nga koy ñaax wala nga dénk ko sax ci demu yaayam bi. Mhm. parce que bien vrai que mère bi mag la waaye yaay yaay rek la mën a doon te absence am dafay feeñ à tout moment. Mhm. lan nga koy wax moment yi mu toll. bu mu teggi tànkam fi mu nekkoon même bu dul taaw mais yàlla mooy jël mhm. nit ci biir kër. jox ko ay cër jox ko ay matuwaay c'est pas parce que moo fi gën parce que li mu nàmp ci ween woowu moom la Jibi Fay nàmp moom la Alaaji Fay nàmp moom la Riche Niang nàmp moom la euh, euh, maanaam Baye Demba euh, nàmp moom la Elie Diagne nàmp moom la keneen ak keneen macha allah li mu ma leen mais daanaka mu taxaw taxaw ba bu mu ci bouger benn yoon merci ngeen É, cai. Tá corpo, tá corpo. ak dafa toog ba tànk bi beneen paa bu nekkoon en face bi. dama mujj daal dafa toog

ak dafa toog ba tànk bi beneen paa bu nekkoon en face bi. dama mujj daal. léegi ñu ngi tànk bi toog rek. waaw Lamine Ndiaye bi dafa jàpp bëgg a ànd ak moom. boo ko parce que xam nga dafa toog loolu loolu ay gàllankoor mooy événement wu xaw ma lan situation. papa bi ñu ñu jëlee woon